mooy seeni journaux seeni télé seeni rajo ak li ñu dencoon ci ay milliards te gannaaw bu ngeen ñu joxee assemblée nationale nag ñoom ñëpp dinañ jaara milliards yi dinañ ko goqi de ni ma leen ko waxee nii lay amee milliards yi dinañ ko delloo réew mi moo tax li may mën a busa di wax ñoom ñëpp ñu bëgg a dem asile assemblée nationale même ñu ci jot ñi ci jotoon a rëcc bu amee ñu ci jotoo rëcc ba dugg assemblée nationale lever immunité parlementaire lu yomb la ci ñaari fan mën nga lever immunité parlementaire kon loolu réglé wul seen problème mais yéen ñeen a war a doon le gardien les gardiens de ce projet parce que jàpp nañ ni par intoxication wax lu dul dëgg inventé ay mbir suñu xëyee ne way Casamance nii suba ñu ne Sonko ki Diomaye ngi doon xeex pale gannaaw suba ñu ne déedéet li ñu wax ci bor bi amul yéen yéen a war a doon les gardiens et vous l'êtes déjà mais dama bëgg ñu yokk ko parce que révolution fu mu sa am rek demal xool Chine fi ñu nekkoon yaa y a 40 ans il ak fi ñu nekk tey demal xool Corée demal xool feneen ak feneen révolution dafay am ñu koy garder du du xeex naa rek ba jox réew mi diw pare naa ci maa ngi dem toog waaye da ngay ànd ak moom bës ak bés tànkam sa tànk ngay saytu lu muy def waaye noon bu ñëw moo xam noon bu jógee bitim réew parce que bëri nañu parce que fu ñu bëggee yóbbu réew mi ci moom suñu bopp ci souveraineté ci jëlee fi nooteel ci jële fi nangu suñu alal réew di ko yóbbu bitim réew loolu neexul ñu bëri ci waa bitim réew te suñu mënoon su pexe bu ne rekk ñu ngi koy lal pour loolu bañ a antu la leen arrangé mooy ñi leen fi toogaloon lu ñu bëgg ñu signé leen te loolu jeex na ci réew mi. waaye noonu biir réew dafa am mooy ñi nga xam ne politique bi yépp mooy seen poos ak nu ñuy def ba accaparer les ressources de sa pays tey gis nañ ni loolu jeex na waaye neexu leen dañoo bëgg a dellu si ñan ñoo war a doon les gardiens de cela mooy yéen le peuple sénégalais et particulièrement cette frange jeune qui représente plus de 70 pour cent du peuple sénégalais loolu nag pour mu am xam naa ni am ngeen ko ba noppi ràññee am ngeen ko ba noppi bu njëkk ba sénégalais bu ko yee taal rajoom lu mu dégg ci rajo bi jàpp na ni lii dëgg la mais li xew ci campagne bi xam nga lu mu firndeel mooy sénégalais dañuy toog di seetaan télé benn waay di wax a wax a wax ku nekk toog ne waa jee mën a fen waa ji nag foog na ni moom moo fi ne nii convaincre na sénégalais yëpp mais campagne bu jotee waa ji génn yéeg ci ko kaw otoom tàllal loxo gisul ñetti nit war na xoolaat boppam ràññe boobu laa bëgg ngeen am ko parce que dañu nekk ci jamono démocratisation de l'information Sénégal ba 1985 1987 benn télé moo fi nekkoon benn rajo benn journal doyen Habib Sy xam na li may wax tey nag waxuma la télé waxuma la rajo waaye kenn ku nekk ci téléphone portable bi mu yor bis bu ne bu connecté dina gis téeméeri nit ñuy def live dina gis téeméeri nit ñuy bind waaye dama bëgg ci loolu lépp ngeen di ràññee ràññee bi mooy ñi ngeen wóolu ba jiitu leen jiital leen teg leen ñuy liggéey na ngeen leen natt par rapport ak ñoom les actes qu'ils natt leen par rapport ak li ñuy waxtaan ak yéen te bañ a déglu ñi nga xam ne seen gémmiñ fi mu ne nii day nàcc moo tax mënatuñoo wax jàmm loolu laa bëgg ci yéen c'est cette conscience très forte qui sera la première protection et la seule protection dont la dont a le projet est-ce que pare ngeen pour loolu la ca des nag fii Daara Jolof fii département de Linguère lu ci lu may jukki ci programme bi dama koy yóbbu ci li El wax léegi muy càmm gi càmm gi dafa am benn filière bu am solo ci vingt filières yi ñu war a développer muy filière bi nga xam ne parce que am mooy loo xam ne amoo looy sànni ah sànni der bi doo ko sànni ndawal gi doo ko sànni waaye meew bi ci boppam ñëpp xam nañ liñ ci mën a def kon loolu rek mënoon a développer pôle bi ndax ñëpp xam nañ ni capacité bi am fii ci élevage néew na mu am feneen ci Sénégal. moo tax agropole bi El Malick wax bi nga xam ne filière cuir peau et lait et viande muy ñeent moom lañ ci gën a bëgg a développer lu bokkul ak mbay mi nag parce que mbay mi am na doole fii également moo tax ñu ne agropole agriculture soo gisee bi ñu ñëwee toog dañu ne sénégalais yi yàgg nañu constater di ministères yi bëri na. réew mu mel ni Sénégal am ay 45 ministères parce que kenn ku ne bëgg nga ko satisfaire loolu du yoon ñu ne kon nañu dajale ministères yi moom mii El Malick Ndiaye ministère bi mu yor balaa muy ñëw ñetti ministère la woon ndax infrastructure teres aéroportuaire loolu yëpp nga dajale ko ci benn ministère loolu gëj naa am Sénégal noonu lañ ko defee ci beneen ministère ak beneen mais ñëpp xam nañ ni càmm ak mbay dañoo ànd la ñuy sàmmee day jëriñ jur gi waaye li jur gi di génne ci biiram day jëriñ lañuy dañuy day jëriñ day jëriñ également baykat bi donc la ñuy bay day jër jëriñ kii et cetera ñu nekkoon lépp lu jëm ci mbay mi ak càmm ji logique la ñu boole leen mu doon benn ministère te loolu du guléet ci Sénégal doyen Habib si xam na li may wax ministère de l'élevage et de l'agriculture yàgg nañ koo boole kon naka la nit di ñëwee fekk ay baykat naa leen waaw dañoo contre mbay mi moo tax gis nga génn eh, dañoo contre càmm gi moo tax génne nañ ko ci ci pôle boobu nag walla ci filière boobu tey suñuy cordonnier ñi ñi nga xam ne ñooy def dàll yi ngaay ñi nekk ndakaaru village artisanal ak feneen ak feneen même bu dee am nañu fii der gi dañuy obligé di ko envoyé Italie pour ñu traité leen ko ñuy doog a delloo ci der bi fii pour ñu mën cee liggéey loolu mënul téye artisanat or artisanat c'est l'un des secteurs les plus importants qui pourvoit beaucoup d'emplois qui pourvoit beaucoup d'emplois mais amuñu cette matière te mu ngi fii ci Jolof meew mi la ñuy importer ay centaine de milliards lañuy ñuy par année ci meew te su doon meew naturel sax mais meew synthétique la meew yu bëri yi ngeen di naan fii xam leen ni du meew dëgg dëgg dëgg bu ngeen ko dajee dugal ci kaas yëngal dañoo jël tuuti ci meew la ca des ay produits synthétiques la moom lañ ko defaree loolu mo am na ci xeetu meew yoo xam ne sax dëkku tubaab bi dañ ko fa tere te ñun bis bu ne moom la ñuy ndékkee kon te boobu jamono fii ñu ngi fiy tuur meew parce que amuñu des unités de conservation bu nit ñi rattee ba noppi meew dafa gaaw a dafa gaaw a way bu wayee tam dafa gaaw a yàqu forox donc soo amulee unité de conservation mu noo ko def dem leen ngeen xool lan la ñu wax ci programme bi te nii ma ko waxee incha allah noonu lañ koy defee fii ci daara loolu ñaata ñaata milliers d'emplois lay créer pour vous les de ce pays kon vision bi leer na dafa leer nañ équipe yi am nañ ko ndax yéen a fal président muy presque seen masse di président boo xam ne c'est un président jeune dynamique am na xam-xam ngeen jiital mu jël premier ministre teg ko sama loxo ñu defar gouvernement boo xam ne yéen ñëpp gis ngeen ko lan moo ñu manqué mooy ngeen jox ñu assemblée nationale pour ñu mën a voter loi ñu war a roote loolu mooy objectifu fi ñu jëm nii am na ñu wax léegi nag ni Daara Jolof Linguère département de Linguère yéen da am benn bor boo xam ne du ñun ngeen ko amel de Sénégal ngeen ko ameel parce que nag fa ñuy defaree réew kenn ku ne war nga fexe ba ne kenn gënumaa gore kenn jiituwuma fa am na nag ñu am avance bu bëree bëree bëri parce que projet PASTEF dafa commencé il y a 10 ans 2017 la ñu commencé